mbokk yi ñuy suivre ci àddina bi ak fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag bu ngeen xoolee fi ñu nekk ñu ngi buntu arène nationale ki toog suñu droite nii mooy Abdou Lahat Ndiaye ki ngeen gis mu toog na leen mooy Liss Ndiago di xale jàmm gën bi xale Ndiago bi comme niñ koy waxee ki ñu làngal ci côté gos bi moom mooy caatu rëbës bu rëbës yaa ngi dégg ñoom ñaar nag seen combat dafa taxaw waaye li ma li jaaxal li mooy combat boo xam ne comme Balla Gaye 2 Modou Lo man moom laa gis fii wala sax Balla Gaye Bombardier parce que daal man lii jaaxal na ma laat laat andeeti nga coow ci dëkk bi maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay fay di fay presse bi fi daje yëpp wax ji mënta sori combat bi jaay na boppam. waaw démarché naa leen ci plus de six mois. mun maa fexe ba jubóog ñaari xale yi defaguñu dara dañ leen doon andi pour présenter leen déjà Babacar coow laa ñuy bëgg a dépassé bi nanguwul lii dañoo ñëwoon rek pour présenter leen kon nag jox leen ñu daal di wax. amul solo ñu wax noonu la demee laata ngi noonu Père Palla Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax manager lis ci loo ne. yeah ginnaaw ma sant yàlla. mais yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm wér sant Yeesu Kirist am na am sell bi. Uh-huh. di bëggee ñëpp di bëggee àdduna di bëggee képp di bëggee lislaam. Uh-huh. yaay di bëggee sama papa Baye Sidi Alxuraan. Mm-hmm. yaay di nuyu ñëpp. Mm-hmm. yaay di leen wax na dal jàmm quoi. dal jàmm. sa diggante ak euh, ki nga xam ne mooy caatu rëbës Abdoulaye Ndiané dox na ko 6 mois munu koo taxawal lu dëgëraloon combat bi kase la wala mooy tonte la wala lan la. nekkul kase yow booy ay tapet lañ. tapet yee man sama combat bu mooy bëri rek jàppale man am naa si 5 adversaires 8 comme lox yu 6 quoi ba ñu bëri man. bañ a jël sa avance. Gambien mi tapet la wala boog euh, caatu rëbës tapet la. kii mooy kii moo gën a yées tapet. te lu mu doon. te lu ma ko bu a bëriwul quoi. loo koy wax wax ko ki jox ndékki. waaw yow boo ko njëkkee yeew rek da ngay tëddaat. waa loolu da am na. sinon xiif da lay rey. te yaa koy jox ndékki. voilà non ban ndékki nga koy jox. waaw yow jëmm ji du moom sax. yow ak kan la. parce que say gis naa moo xam ne maa ngi entraîné pour leneen lu nekk sama kanam quoi. Hmm. mais du maa ngi booy. kon côté bëre ak côté xeex yéen ñaar ku ko ci dàqale. moo la benn affaire man lu may wax làqatu ma ko. waxal yaa ngi dégg waxal. bëtu tan waaw amaan tamit jéggi na melentaan quoi waaw bi du melentaan gaynde waaw gaynde waaw xajul si muus ok amaan tamit amul tànk waaw mais toujours yàlla moo koy won yoonam <laughs> ah, waaw loolu am dégg waaw kii bu taxawee mhm. barki sëy jig naa mu sama ma duma ko dumay mét daan mhm. kii bu taxawee nga duma ko waxuma la moom sax ay waaw bu ma wax ay kan quoi ñu koy ñu koy jiite sax laa lay wax ñoom double moteur xanaa alxuraan ko bu di taxaw sax ah, double moteur diisul yow avant tam après nañ comprendre quoi. bëri bii nii mu jugee si moom rek nañ xam man nan ñooy samay morom si làmb. Liss ña yaa ngi ci ñaata combat. yow maa ngi cinq combat. ñaata victoire quatre victoire benn défaite. waaw maa bëgg xamal booy nii dañuy tey si man de. ñu tey ci yow. lu ne ci yow ba ñuy tey. xamuñu ma ko waa. lan ma gis. làmb xoolal caméra yi tax ñu xam la. lis mbooloo mi lay topp lan la mbooloo mi boo jógee ñu jóg ay yàq rek mbooloo mépp ay oto ñëw fii. non sama koñ boo fa duggee. boo ñu fekkee ñun ñu toog rek ñun fees nañ si koñ quoi. ok yee suñu jotaay waxtaan rek toog nii ñun mafia la quoi ñooy ànd. Mm-hmm. yee waa jàmm gën yaa ngi dégg guy ga foran waaye caaro géej si kam mbaaw njaago bar fépp tableau mm-hmm. ku lim day jum guy ga tellement jaar fépp ay mbedd faaf man ñu may xamul mais loolu yàlla moo koy def si man ko def si man tey lii nii maanaam nattu la si man am la. Mhm. parce que ma ñëw man kese man bu ñëwee rek. dañuy ñëw même bu ma leen laqatu après ñoom dañuy ñëwaat. dañuy sa kanam yaa ngi ñoom toog yeneen la quoi ko def si man du ma si dara. kii am na looy moytu ci moom Thiatou Rebeuss. déggoo ma la kii alxuraan bu at bi suuflee mu duma daan la wax ma laa kii barki weeru alxuraan loolu leer na ñi lay jiite sax bu at bi suuflee mu duma daan la defe naa ginnaaw bu ma la nuyee caatu rëbës waaw jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba ginnaaw bon sant yàlla julli si yonente bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay fa mu tëdd dàqal ko fi mu jóor ñaanal sama pap mu yàgg fi loolu fekk suñu njëriñ di sant sama sëriñ Baye Ass Mbacke bu Daaru Salaam wér di sant Baye Sidim Mbacke Alxuraan bu wér di sant sëñ Fallou Maraxib bu wér a wér a wér barke maam Serval dañ may jàppal di ma dooleel sans comprendre di nuyu mafia bi ma àndal di nuyu mafia procureur bépp di nuyu waa Rëbës képp kuy doomu Rëbës wala képp bawal bawal maa ngi bu baax a baax man doomu Rëbës laa ak bawal maa ngi nuyu di sàkku ñaan bu baax a baax combat bi leen day yomb day nax boppam déggoo li mu wax moom garab bu bëgg a tax ci digg penc ndax daana ko dina yomb garab bu naree doon waaw ci diggum penc waaw ndax daana ko dina yomb ah ay pexe lay laaj doo ko mas a daane kii bu ñu jugoon léegi dugg arène nationale barke maam Serap Fane cinq combat ma daan ko cinq jël yow yow xool nga kii kii ay ñay la jël ba yii ni déggoon li ma la bu ñu woon léegi lan mooy ay ñay yow itam doomu téeméer yi ah. kii li ko benke ñenkewu ko de li ko benke ñenkewu ko te bàyyi faal yi neen góor du yërëm góor ah waaw góor waaw du yërëm góor jëflante rek daal nan samb tànk yi dara ci sanguñu yaag moom xam tax amateur yi rek combat bi lañ doon xaar ñu ko dox xam nga ci six mois la at lañ ko dox combat bi taxul at muy soo taxaw ren mais coow li am ci combat bi nii te demaguñ ca stade ba. ñaari xale la ñaari espoir li ma koy wax leen la dañoo fay li amateur yi bëgg ci combat bi. xeex bëre ngir yàlla war a sóor bu ñu rusloo amateur yi. moom gor la mooy gor. gor jur ko gor jur ma. ngir yàlla war a sóor bu subaa tam tànk yi dara ji sangoo ñu amut sangoo. xam ngeen ko xam ngeen ko tëgg seen combat. jàmbaar jee ko tëgg. yan jàmbaar wax ma ko. <laughs> jee jee doomu de Abdou Lahat jee seet te dégg nga li ma wax kii dama ne la Abdou waaw kii 10 combat 10 combat 10 jël ma daan ko. kii ah. ay naka naka la doon bëreel ñu doon bëreel ak doomu rose bi ak procureur bi barke maam Cheikh Fall bu dëgg la papa ma daan ko ci une minute yow ñaata combat nga def arène ki mu fi def fa ko gars teg yëggu fa kii naxa naxa la mais dégg naa mbër mu bëri mbooloo la ban mbooloom gars yi ñoo ko gis mais man gisuma ko man caaturo bas de xam ne laa gis ah. ne primo du ma ko daan ko barki alxuraanu karim bu taxawee mu du ma ko daan ko mu neex mu naqari ko bés ba ku yëpp ay noobu ay booy temps dañuy sol lu rafet ñëw stade dagg bee yu cher ci kaw ñu yëg ci kaw ci suuf xam li ma war. Ah. ñi ma war a bëreel du kii xëy lu mënta ñàkk la rek lu mënta ñàkk mais ñu ma war a bëreel du kii lu mënta ñàkk coon bi la mais kii dama ko xaw ma njaago or bu subaa përëm lay doon. përëm lay doon. laat kii bu bëree ma duma ko bu xeexee ma daan ko. wooteel léegi. woote leen. wo. <laughs> di woo waa di woo sama patron. sama patron Samb taalibi Cheikh mu jàpp ci combat bu baax di woo maam Góor Samb di woo Paul Douane ku dul Douane yaa ngi comprendre maa ngi woo waa Rëbës képp kuy doomu Rëbës di woo sama waa dëkk sama waa dëkk waa Diourbel kër Baye Laay kër Cheikh ñu ñëw jàpp ci combat bi di sant Baye Sidi Mbacke Alxuraan encore bu baax a baax di sant Baye Sidi Mbacke Alxuraan di sant Serigne Fallou Maraxe bu baax a baax a baax di sant sama Serigne Serigne As Mbacke bu baax a baax di sant taxaw di woo waa waa Kër Sëñ waa Sandu Course waa Mbudaay grand Aar Cuxole grand Omar xam di woo gaay xam ne tey ñun ay ndaw lan te tey amaana ki taxu ñoo jug ta ñàkk la mais li wax gars yi gars yi bu kenn tiit képp koy béggee ci Thiatou xel bu jour baa añal ba suur naan lu sedd guy boo waaji dikkee ma jàpp ko bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko barke maam kii ngaaka la moo tax mu ne fi di tëwëri gars di dox seen xel mooy loolu noonu mais di wax waa bu baax a baax di ñaan sam mu yàgg fi lool lool ba fekk suñu njëriñ quoi ci doole Cheikh Ibra Fall mbër looy tàggoo moo benn loolu lu ma la wax bëriwul quoi muy yow ak say morom lépp loola ma dig yow yaa yow lépp loo ma dig lu dul yóbbu ma dig jàppal lépp dina dig maanaam ñun xamna ma booy bokkuñu da ngay dégg man damaa dëkk jàmm gën yaa ngi ñu am lu ñu gëmloo mooy lan dañoo gëmloo woon après la pluie c'est la lan bota yee boo ñu xoolee ñun ab maanaam nu ñuy doxee quoi di nga xam ñun après la pluie c'est la pacax pacax yaa ngi dégg kii moo ko yeewee kii moo ko yeewee kii moo ko yeewee dinaa ko pacax yee parce si pacax laa dëkk quoi looy wax promoteur bi jéy seen lu ma koy wax mooy gaan xam la dellu bu baax di ko sant bu baax yaa ngi dégg parce sam boo yëpp gaan dañ ma doon moytu yee ku wax moom mii sax gàndof ma doon moytu. dara doon moytu barki alxuraan bañ ma woowee ma laam ji taxaw na man gëwuma ko. Mhm. billaahi yow déglu la. waaw ah amaan tamit mun nañ la tiimal caméra nga wax. waaw du ma ko dóor du ma ko saara fi. Uh-huh. du ko def dara. Uh-huh. yaa ngi dégg. waaw uh-huh. wax lay def amaan tamit nay wax si man lu ko neex. yaa ngi dégg mais bu arbitre sifflé yow ñaata booy laa fi daan signature bu arbitre sifflé bu ma tàllee sama loxo bu ma doxee si koom. yow naka naka nga doon bëri dox seen xel kontaan ci yow. dal jàmm di sant mafia bi yëpp. yaa ngi dégg di bëggee waa Ndiago Bar. waa Foran jaaykatu yàppee jaaykatu ngooñ waa Kër Massar. Hmm. yaa ngi dégg waa Wakinan hmm. waa. ara jàmm gën yee waa guy ga tëlimaam jaara lamsaar caaroy géej ma fiyaa a rouge bi yee di bëre ñëpp di bëggee ma fiyaa dëmb bi wàcce naan di bëggee sama ma fiyaa ma fiyaa tiril di bëggee dóor ci mat gi ak ma fiyaa yëpp bàyyi ma kenn yee di leen wax ne bis laatal jàmm raxmantal jàmm di woo Paul li ko bénkee ñee nga ko barke alxuraan gis ko mbaa ma daan la a